sëriñ Mayoro Fall sëriñ Mayoro Fall mi ngi gane àdduna ci atum 1900 ci dëkk bu ñuy wax Njiig Fall Njiig Fall ak Louga fanweeri kilomètre ak juróom moo dox ci diggante bi ñetteelu maam bu ñuy wax sëriñ Njiig Mayoro Ndaa Kebe Fall moo sosoon dëkk bi ci atum 1796 sëriñ Mayoro Fall doomu soxna Assane Diop la soxna Assane Diop mi doomu sëriñ Moor Ma Anta Diop la sëriñ Moor Ma Anta Diop mii meññ soxna Assane Diop mii meññ sëriñ Mayoro Fall ci dëkk bu ñuy wax kër Anta Diop la dëkkoon mu nekkoon itam jàngalekatu alxuraan bu mag ci dëkk boobu sëriñ Mayoro Fall doomu sëriñ njiig Moodu Absa Fall la sëriñ Moodu Absa Fall ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim la ba mu seexal ko sëriñ Moodu Absa Fall moom nag moo meññ sëriñ Mayoro Fall mii ñu fas waxtaane tey jii sëriñ ma yora faal nag doomu soxna asan jóob la am na nag ñu bokkal soxna asan jóob ak kii di sëriñ moodu absa faal ñu ràññee ci sëriñ moodu asan faal ibnu soxna asan jóob ibnu sëriñ moodu absa faal ak ku ñuy wax sëriñ mataar faal sëriñ mataar faal doomu soxna asan jóob la ak sëriñ moodu absa faal ak ku ñuy wax soxna xadi ñaan faal doomu soxna asan jóob la ak sëriñ moodu absa faal ak ku ñuy wax soxna kumba galo faal doomu soxna asan jóob la ak sëriñ moodu absa faal ak seen beneen jigéen ba ku ñuy wax soxna asta faal doomu soxna asan jóob la ak sëriñ moodu absa faal ak moom sëriñ mayoro faal mu soxna asan jóob ak sëriñ moodu absa faal kon juróom la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy juróom benn muy ñett ñu góor ak ñu jigéen ci juróom-ñaari atam tombeek mu tolloog 1907 nag ci la dal alxuraanul karim waajuram moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jox ku ñuy wax sëriñ ay meeru sàmb mu nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ci dëkk bu ñuy wax càmbeen càmbeen ak ñiig faal ñetti kilomètre moo dox ci diggante bi sëriñ ma yoro faal foofu la nekk nag ba mokkal alxuraanul karim ba jàng fa itam as lëf ci xam-xam ginnaaw bi nag la fa bàyyi ko ñibbisiwaat ci njiig faal ci ëttub waajuram ci atum Touba Seexul Xaddim nekk ci njaareem ci résidence surveillée la ko waajuram sëriñ Moodu Absa Fall nag jébbal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ci njaareem sëriñ ma Yoro Fall nag nekk nag ab murit sëriñ Touba Seexul Xaddim ci daare alxuraan ji nekkoon njaareem nag la ko boole woon boole woon koog nag ku ñuy wax soxna Faati Madun Jóob soxna Faati Madun Jóob mii sax moom meññi Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke mu sëriñ Touba Seexul Xaddim féetali koog nag sëriñ ma Yoro Fall mi ngir soxna Faati Madun Jóob nekk nag yaayu ma Yoro Fall ba na sëriñ ma Yoro Fall mi Fatima Dun Jóob soxla lenn ci ay xasida moom sëriñ Mayoro Faal mi moo ko daa bindalaat soxna Fatima Dun Jóob mi sëriñ Mayoro Faal itam ci jege Cheikh Mamadul Bachir ndax lim jege waajuram jigéen wii ba tax na itam mook sëriñ Mbàkke Juuf séq nañ lu bare a bare a bare moom sëriñ Mayoro Faal mi sëriñ Mbàkke Juuf nag ci bëkk néeg yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim la bokkoon ci njaareem ba tax na sëriñ Mayoro Faal mi sax def na ay way ci sëriñ Mbàkke Juuf mi ngiru kóllëre sëriñ Mayoro Faal nag des njaareem ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mas na koo ma yoro yaag seex sama moom nag yéen a bokk bàyyi loolu itam nag taxoon na mag ñi bàyyi woon ko xel bu baax a baax ci njaareem ci njaareem googu itam la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim boole woon tim ci ñu daa bind ay kaamil ci ñu ràññee woon ci sëriñ moor alima géy ñu raññee woon ci itim ku ñuy wax sëriñ ibrahima ñaan raññee woon ci itim ku ñuy wax sëriñ elaaji ñaan ci bindkatu kaamil yooyu itam ràññee woon nañ ci ku ñuy wax sëriñ abdu xaadir caan ba tey ci bindkati kaamil yooyu itam ràññee woon nañ ci ku ñuy wax sëriñ Moodu Faal Masamba ràññee woon nañ ci ku ñuy wax sëriñ Moussa Alima Guèye ràññee woon nañ ci ku ñuy wax Majëmb Silla ràññee woon nañ ci ku ñuy wax sëriñ Assane Fall dëkk ci Xayrawaan ràññee woon nañ ci ku ñuy wax sëriñ Moodu Absa Fall dëkk ci Kër Ma Binta ràññee woon nañ ci nag ku ñuy wax sëriñ Moor Sëy ak ñeneen ak ñeneen ci bindkati kaamil yi nekkoon ci njaareem ak moom mii di sëriñ Mayoro Fall ndax bokkoon na ci ñi sëriñ Tuubaa Seexul Xadim boole woon ci kuréel googu bindkatu kaamil yi itam sëriñ Tuubaa Seexul Xadim daana leen wax ne alxuraanul Abdul Karim moo leen di fayal boppam te yéen maa leen boole ci sama ñoñ te ci sama waa kër ngeen bokk bindkati kaamil yooyu wéy nañ nekk njaarim ba ci atum 1927 ginnaaw bu ci atum googu la continué nekk ndax ci atum bi fi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di bàyyi ko ci ñaar fukki at ak juróom ñaar la am ba atum 1937 itam kuréel gi mi ngi njaareem di wéy di bind ci ndigal leen fi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyeeloon bu nawet masaa jot nag daanañ dem naweti ci dëkk bu ñuy wax danax danax nag mi ngi ci wetu ñaaxeen su nawet bi jeexee nag ñu delsiwaat njaareem ci atum 1938 nag leen seex moodu mustapha mbàkke jëlee njaareem yóbbu leen ci dëkk bu ñuy wax daaru nahim daaru nahim soriwul dara tuubaa ci dëkk la bu seex moodu mustapha mbàkke gor sëriñ ma yoro faal mi nag ci ñi seex moodu mustapha mbàkke yóbbu woon daaru nahim itam ci la bokk daaru nahim googu itam keroog ba mu Moustapha Mbàkke yóbboo lam wax waa daaru nahim da leen xamal na leen ne ay tànneef laa leen indil tànneef yooyu nag mooy kuréel gi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bàyyi woon njaareem ñi bind ay kaamili alxuraan te kuréel googu itam sëriñ ma Yoro Faal ci la bokkoon moo tax bi leen Cheikh Modou Moustapha Mbàkke indee daaru nahim di xamal waa daaru nahim di leen wax ne ay tànneef laa leen indil ba tax na daaru nahim googu sax am na doom ju fa feeñe jamono muy ku ñuy wax sëriñ Siidi dajale addiya yi mu toftal ko ci ginnaaw sëriñ moodu xabbaan ci loxoy seex moodu mustapha mbàkke nag la des ba ci atum 1945 mu jël léppam nag jébbal taawub seex moodu mustapha mbàkke ba muy sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma sëriñ mayoro faal nag nekkoon na bindkat bind na téere boo xam ne ni tomb yi sëriñ tubaa seexul xaddim daa tomb ci la ko def ngir di ci jàngale ni seexul xaddim daa waxe téere ba sëriñ mustapha faal mi nekkoon taawub maam cheikh ibrahima faal lamp baabul muridina ci la mujjoon sëriñ cheikh faal bàyyub góor yoroon na ko bàyyi sëriñ maxtaar faal mi bokk ak sëriñ mayora faal waajuru góor ak waajuru jigéen muy soxna asan jóob ak kii di sëriñ muudu absa faal baay sëriñ faal moo nekk jëwriñu kër ga nee na sëriñ cheikh faal bàyyi góor moo ne ko téere bii ma yor dee sa waajur wa moo ko bind di sëriñ mayora faal ba tey ci mbindum sëriñ mayora faal wayoon na ay way góor yàlla gii mu nekkaloon ci ëttub ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim te nekkoon wóllëreem muy sëriñ mbàkke juuf bu njaareem def na wolofal bu yaatu ci jëmm jooju wolofal suuf bëkk néeg wolofal gu yaatoo yaatu la xam naa danañ leen ci dégtal ñaari way rek ngir ngeen xam ne wolofal gi sëriñ Mayoro Fall bindoon na ko sëriñ Mbàkke Juuf bëkk néeg ñu teewlu ko lee di xet di Bàmba moo di Mbàkke Juuf ngeen dajeeti na nga dal di yegg suuf yaru na lool toxal ba leere ni bëccëg ba tax na foo ko fekk aw maga ko wër ginnaaw wolofal googu ngeen doon déglu te indi luñ leen lépp léppi fal gi ba tey sëriñ Mayoro Fall tudde na xaritam di sëriñ Mbàkke Juuf bëkk Mayoro Fall Serigne Mbàkke Diouf la ko tudde sëñ Mayoro Fall itam tudde na Cheikh Mamadul Basir Mbàkke doom ndax soxna Xari Madun Jóob mi nekkoon waajur Cheikh Mamadul Basir Mbàkke moo nekkoon yaayu daaraam Serigne Mayoro Fall nag am na ay góor yàlla yum ànduloon doon liggéey ci ëttub ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ñu jàppee leen ay jëwri ñëm taaliba yooyu àndoon ak Serigne Mayoro Fall di liggéey ñu ràññee ci ku ñuy wax Serigne Modou Gueye Sow ràññee ci ku ñuy wax Serigne Modou Diop ràññee ci ku ñuy wax Serigne Mor Penda Ndiaye ci dëkk bu ñuy wax Togal ñu ràññee ci ku ñuy wax Serigne Yatma Ndiaye ràññee nañ ci ku ñuy wax Madiagne Sàmbu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Diop ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Moodu Fall sëriñ Musee Ndooy sëriñ Diine Njaay sëriñ Diine Njaay mi keroog bi sëriñ Mayoro Fall di génn àdduna ci hôpital bu ngin gi néew bokkoon na itam ci ñu àndoon ak moom ca tournée ba sëriñ Maxtaar Njaay ak ku ñuy wax Sàmba Roqaya Sàll sëriñ Mbeng Jeng sëriñ Moodu Ñas sëriñ Elaaji Baara Géy ci dëkk bu ñuy wax Xambala Topp ñu ràññee ci ñuy wax sëriñ Moodu Saar Jatara ràññee ci ñuy wax sëriñ Musaa Njaay ràññee woon nañ ci ba tey ku ñuy wax sëriñ Max xari kan ñu ràññee woon ci ku ñuy wax sëriñ Mamma Jóob Mbooja ñu ràññee woon ci ku ñuy wax sëriñ Biraam Juuf ci kër Ngalgu ràññee woon nañ ci yim ku ñuy wax sëriñ Njawar Caam ca Faas Barigo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu nekkoon ci jëwriñ yi jëwriñ yooyu mu àndoon ak ñoom di liggéey ci ëttub ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim taxoon na itam mag ñi àndaloon ci ëttub ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim wala mag ñi àndoon ak waajuram ci ëttub ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ñi ci bari itam defoon nañ ko wóllëre moom sëriñ Mayoro Fall ndax tudde na Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke doom tudde na itam jëwriñam ngii di cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim doom tudde na xaadim rasul doom ndax sëriñ daam faal mi ngi fi tudde na waajuram wa doom di sëriñ moodu absa faal sëriñ mbàkke juuf nekkoon bëkk néeg ci këru njaareem gi kii di sëriñ ma yoro faal itam tudde na ko doom ndax sëriñ mbàkke faal bu sëriñ ma yoro faal mi ngi fi te sëriñ mbàkke juuf bëkk néeg la ko tudde sëriñ isaa faal bokkoon ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim te dëkk itam ci dëkk bu tudd tëdd biti nekk ci waalo joxoon na ko ñuy wax soxna faal ngir mu dëkkoo sëriñ baaba faal bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim te dëkk itim ci dëkk bi tudd daaru ndóof joxoon na ko doomam ju ñuy wax soxna roqaya faal ngir mu dëkkoo ko sëriñ baara gay faati mbóoj bokkoon itim ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim joxoon na ko doomam ju ñuy wax soxna mbóoj a gay ngir mu dëkkoo ko sëriñ baara gay faati mbóoj moom sax ci atum 1952 a génn àdduna ci bi muy génn àdduna feebar bi ko tëraloon sëriñ ma yora faal moo nekkoon ci wetam moo ko taxawu sëriñ baara gay faati mbooj la sëriñ baara gay faati mbooj nag moo meññi sëriñ mustapha gay mi nekk jëwriñu cheikh yi daaru xuddoos yi nekkoon na itam wóolle réew sëriñ mustapha fall mi njëkk a wuutu maam cheikh ibrahima fall lamp ak ñeneen ak ñeneen ñoom nekkaloon ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom sëñ ma yoro faal itam bindkatub kaamil boobu mu nekkoon ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim tax na itam mag ñu bari ñoo xam ni ay taale alxuraan lañ yoroon itam faboon nañ seenu njaboot jébbal ko sëriñ ma yoro faal Diop dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax kër Kodde foboon na doom ju ñuy wax soxna Aminata Diop jébbal ko ko ak ku ñuy wax sëriñ Moodu Mareema Sëy dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Cenjax Sëy foboon na doom ju ñuy wax soxna Aminata Sëy jébbal ko ko ngir nituk alxuraan gi mu doon ak ku ñuy wax sëriñ Maxari Sàmbu dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Njombeen Sàmbu foboon na doom ju ñuy wax soxna Mareema Sàmbu joxoon ko sëriñ ma Yoro Faal ngir mu dëkkoo ko ba tey ku ñuy wax sëriñ Moodu Xari Kebe foboon na doom ju ñuy wax soxna Safi Kebe jébbaloon ko sëriñ ma Yoro Faal ngir mu dëkkoo ko sëriñ Moodu Xari Kebe mi mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Ndiéye Saa Touré nekkoon kilifa diine wala jàngalekatu alxuraan bu mag itam ngir barkeb alxuraan bi nekk ci sëriñ Mayoro Fall barkeb alxuraan boobu nekkoon ci sëriñ Mayoro Fall taxoon na itam mu taxawal daaray alxuraan ju mag a mag ci njiig faal googu di yar di jàng ak di jàngale ndax sëriñ Tuubaa Seexul Xadim mi yaakaar kat boole woon na ko ci kuréel gi koy bindal kaamila alxuraan ci njaareem ba tax na ci Ndiéye Fall googu amoon na fa daaray alxuraan ju mag di jàngale alxuraan ndax ndono xaddiim bàyyeel wala bokk na ci ndona li ko sëriñ tubaa seexul xaddiim féetale woon muy alxuraanul karim ba tey ci liggéeyub sëriñ ma yoro faal amoon na ay daaray tarbiya wala amoon na ay tool yu muy baye ngir ñi mu àndal di liggéey ngir ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu ràññee ci daaray gétti ga ràññee ci daara ju newoon ci dëkk bu tudd mboso daaray waadaan ak daaray ngeeraan ak yeneen ak yeneen ni daara yu jëmm ji di sëriñ ma yoro faal amoon di jàngale ak di tarbiya àndal jaamu yàlla ak ndaw ñaq la ak joxe mu wéy des ci dëkk boobu di njiig faal ànd ak nag mbooloo mi toppoon waajuróom di sëriñ moodu absa faal di liggéey mu ñëw nekk nag ñaareelu xalifa sëriñ moodu absa faal wuutu magam ja nag sëriñ moodu asan faal njëkkoon a nekk xalifa sëriñ moodu absa faal ci atum 1945 la xalifab sëriñ moodu absa faal bu njëkk génn àdduna di sëriñ moodu asan faal ci at moomu nag di atum nag la wuutu magam ja sëriñ moodu asan faal ñëw nag nekk ñaareelu xalifa fa waajuram di sëriñ Moodu Absa Fall ñu tekk ñetti weer ci at moom di atum 1945 geneen rakkam ja toppoon ci moom di sëriñ Maxtaar Fall génn àdduna ginnaaw bu magam jooju génnee àdduna di sëriñ Moodu Asan Fall ak rakkam jooju di sëriñ Maxtaar Fall Asan sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde ma yebaloon na ku ñuy wax sëriñ Moodu Loo ma jaxate di ko wax ne soo demee Njiig Fall nga wax sëriñ ma Yoro Fall waa kër magam jooju di sëriñ Moodu Asan Fall ak waa kër rakkam jooju di sëriñ Maxtaar Fall Asan na boole yor te dëkkoo leen sëriñ ma Yoro itam jëfe woon nekk na kilifa diine gu mag nag ci njàmbur ba tax na waa njàmbur gépp joxoon nañ ko seen bopp di ko xoolee xaadimu rasuul wala sëriñ Moodu Absa Faal ndax taxawaay gu mu taxawu ci yoon woowa mu yor nag comportement murit bu wér saa boo ko gisee sa xel dem ci muridisme mu taxawal gàmm gu mag ci tund woow di njiig faal ngir di dundalaat bisum ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di fàttaliku waale nag jaar jaaru xaadim rasuul ba tax na ci dëkk boobu di njiig faal ku ne fekk fekk na ko fa ku ne na ko fa sëriñ ma yoro faal lu mu noppi noppi noppi su masaa gis gan gu jóge njaareem daa nga dégg baatam ba ndax waa njaareem da na fonkoon ndax ka lépp lu mu am foofu la ko amee ndax foofa la tarbiyoo tundu njàmbur woowu nag def ko kilifa moom itam mu jàppee leen ay taalibe ku am doom wax ko ko mu ñëw tudd ko ku jaaxle wax ko ko mu faj ko bépp taalibeem nag bu génn àdduna mu solu dàllam dem taxawula la ñaanal la defal sa njaboot delsiwaat njiig faal atum 1955 tukki yooyu mu daa amal ràññee woon nañ ci dëkk bii di njàmbur ndax ku fa amoon ay wóllëre la te daana leen seeti at mu jot bawal moom kenn waxaalewu ko ndax kat fi la gën a miin ndax fi la tarbiyewoo ak tund wii nag wala suuf sii nag di saalum saalum googu sax la mujjee génne àdduna ci dëkk bu ñuy wax ngin ngi néew tukki yooyu mu daa def di nemmeeku ji taalibe yi ci njàmbur ak saalum ak bawal def na ko nag ci diiru fukki at yàlla ndax ci diiru fukki at kat la wuutu wa sëriñ masaa di dajale nag su masaa pare sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma la koy jébbal dëkk yi masaa dem ñu ràññee ci njiig faal googu muy jóge daana dem itam ci dëkk bu tudd xambala toob su masaa dem ci dëkk boobu di xambala toob ku ñuy wax sëriñ baara gay toob la fa daa fekk daana dem itam ci dëkk bu tudd luga ku ñuy wax sëriñ muudu ñas la fa daa fekk daana dem itam ci dëkk bu tudd taysiir ku ñuy wax njaga ñang la fa daa fekk daana ñëw itam ci dëkk bu sell bii di tuubaa ku ñuy wax bu jeng la fi daa fekk daana dem itam njaareem sëriñ mbàkke juuf mi nekk kon ab xaritam la fa daa fekk daana dem itam ci dëkk bu tudd mbuluñ ku ñuy wax du njaay la fa daa fekk daana dem ci dëkk bu tudd ñiibi ku ñuy wax ngañ fay la daa fekk daana dem itam ci dëkk bu tudd ngeeraan ku ñuy wax maxtaar ñang ak sëriñ mbeng la fa daa fekk daana dem itam ci dëkk bu ñuy wax ngin gi néew ku ñuy wax sëriñ mbay faal la fa daa fekk ngin gi néew googu sax la ko feebar bi ko génne àdduna tërale at mu jot noonu la daa amale lii dib tukkeem ba ci atum 1955 ci atum 1955 bom bi demee ngin gi la ko ginnaaw feebar bi ko daaneel tëral feebar boobu itam lañ ko mujj yóbbu hôpital ngin ngi néew mujj génn àdduna ci dëkk boobu di ngin ngi néew su masaa dem ci tukki bi itam am na kilifa yum daa àndal ñu ràññee ca kilifa ya sëriñ Moustapha Fall mi nekkoon ab taawam ak ku ñuy wax sëriñ faal njiig di doomu sëriñ maxtaar faal asan mi nekkoon rakku sëriñ yoro faal sëriñ daam sàll di ab taalibeem sëriñ moor baabu di ab taalibeem ak sëriñ ngañ fay mi nekkub taalibeem ak ku ñuy wax sëñ diine njaay ci biir bi mu tëddee feebar boobu nag rakkam ji ñuy wax sëriñ bàmba faal moo ko wuutu sax nekk ñeenteelu xalifa sëriñ njiig faal ñëw na seet si ko kon ñii la daa àndal daa seeti taalibe yi ba ni mu génnee àdduna sëriñ mayoro faal mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci dëkk bu ñuy wax ngin gi néew ci tournée bu mu doon amal ci taalibe yi bi mu egsee ci dëkk boobu di ngeen gi néew nag la ko feebar bi daaneel mu tëdd fa feebar ci dëkk boobu itam la mujj génne àdduna ci hôpital bu ngin ngi néew bisub gaawu juróom-ñaari fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1374 ci gàddaay gi gaawu juróom-ñaari fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1374 ci gàddaay gi dëppoo muy samedi 1er janvier 1955 samedi 1er janvier 1955 ci hôpital bu ngeen gi néew wala ci dispensaire bu ngin gi néew ci teewaayu sëriñ Moustapha Fall baay sëriñ Fall Njik ak sëriñ Diine Njaay kero bi muy génn àdduna moom sëriñ Mayoro Fall ci dispensaire bu ngin gi néew ñii ñoo ko fekke kero bi mu génnee àdduna ci hôpital bu ngin gi néew ab naar moo leen abal ab oto ngir ñu jële ko ngin gi néew indi ko ci dëkk bu sell bi di Touba ci ndigalul sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ndax boobakat moom la sëriñ Mayoro Fall mi jébbal boppam ñi ko jëlee ngin gi néew indi ko nag ci dëkk bu sell bi di Touba mooy ku ñuy wax yëgee na magam jii di sëriñ Mayoro Faal kat feebar na la dem hôpital bu ngin ngi néew seeti ko fa ak ku ñuy wax sëriñ Moustapha Faal mi mu àndaloon ca tournée ba di doomam ak ku ñuy wax sëriñ Faal di doomu sëriñ Maxtaar Faal mi nekk rakku sëriñ Mayoro Faal ak ku ñuy wax sëriñ Daam Sàll ak ku ñuy wax sëriñ Moor Baabu ak ku ñuy wax sëriñ Ngañ Fay ñii nag ñoo ànd sëriñ Mayoro Faal ci hôpital bu ngin ngi néew ngir fas yéene koo indi nag ci dëkk bu sell bi di Touba jébbal ko kam yaakaaroon di sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko ko boroomam ci armeer yu mag yi moom itam sëñ Mayoro Fall wuutu na waajuróom ci diiru fukki at ndax ci atum 1945 ba atum ci njiig faal googu lañ ko ñaanale bisub keroog biñ koy ñaanal kilifa yu baree bari teew nañ fa sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ñëwul woon keroog njiig faal waaye dafa yabaloon rakkam xaritam sëriñ dan xariloo ngir mu jiitee délégation bi sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma te biir délégation bi àndoon sëriñ dan xariloo ràññee nañ ca ci turu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ràññee nañ ci sëriñ mbàkke juuf nekkoon xaritam di wëllëreem ràññee nañ ci ku ñuy wax sëriñ cheikh gay mbaaco ibnu sëriñ baara gay faati mbóoj ràññee nañ ci ku ñuy wax sëriñ cheikh tedd juuf jamono ji sax moo toog toogaayu sëriñ mbàkke juuf ak ñeneen ak ñeneen ñu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma yabal keroog ci njiig faal ngir ñu fekke si bis bu mujj bu sëriñ ma yoro faal moom sëriñ ma yoro faal nag ci xalifab kër waajuram di sëriñ moodu absa faal sëriñ bamba faal mii nag moo ko fa wuutu ci kër boppam nag ku ñuy wax sëriñ Moustapha Fall moo ko fa wuutu ci atum 1955 ba atum 2005 ci diir juróom fukki at ñaareelu xalifa sëriñ Mayoro Fall mooy sëriñ Sidi Fall mi feeñe jamono ci dëkk bii di Daaru Naim ci bu ko fa Cheikh Modou Moustapha Mbacke yóbboo ci atum 1938 moo nekk ñaareelu xalifa sëriñ Mayoro Fall moom sëriñ Sidi Fall ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér gi yaram tam yàgg nag ci toogaayu waajuróom wow di sëriñ Mayoro Fall te sut waajuróom wa aw fan te nag barke ba ak mboolem nag ñim séqal sëriñ sëriñ Mayoro Fall sëriñ Mayoro Fall nag am na bis buñ koy fàttaliku wala am na bis bu ñuy fàttaliku waajuram wa di sëriñ Modou Absa Fall ci bis ñuy fàttaliku sëriñ Modou Absa Fall nag di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakkaat ji gàmmu bis boobu nag lañ boole ñoom waa Njiig Fall def ko gennu màggal képp koo xam ne nii ci njabootuk sëriñ Modou Absa Fall nga bokk moo xam góor wala jigéen ci benn bis boobu nag lañ leen boole di leen fàttaliku ngir Njiig Fall gépp nag am benn bis bu ñuy fàttaliku njaboot gi kon ci bisum ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakkaat ji gàmmu lañuy fàtt fàttaliku waajuróom wa sëriñ Moodu Absa Fall ci lañ koy fàttaliku waale moom sëriñ Mayoro Fall ndax Njig Fall gépp kat benn bis boobu lañu am ñuy ñaan ci doomu sëriñ Moodu Absa Fall ba ka bokkoon ci bindukatu kaamil yee ci njaareem ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di sëriñ Mayoro Fall yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te wane la koog waajuróom wa sëriñ Moodu Absa Fall ak kam doon liggéeyal di Xaadim Rasuul amiin